jaara nuy ay dëkkandoom nuy soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaaram asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf soxna Awa maa ngi lay nuyu bu baax man la man maa ngi tudd Abdou Khadir Ba nekk kuy jéem a ci mbiri sëriñ bi nekkit koo xam ne maa ngi yëngu ci barab bu ñuy wax euh, Tombouctou institut di fa yëngu ci wàllu informatique mooy barab boo xam ne it ay gëstukat lañ ci fànn yu bare bari daal ma bokkoon nag ci ñi nga xam ne it ñoo doon taxawal waxtaan yi ñu doon amal fii ci te sëti sëñ Basiru yi ak taalibe kër sëñ Basiru yi seqoon ko ma bokkoon ci panélistes yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi. gis nañu nga développé benn thème sànq ci réseaux sociaux yi. Euh, loolu ban ban ban influence la mën a am ci bis bu mel ne màggalu Porokhane. waaw xam nga benn boo seetloo ñaari baat nga boole muy réseau sociaux sociaux manees na ne mooy loo xam ne rek lu askan wi bokk la te xëy na màggal gi benn la ci yooyu ndax euh, dañuy fàttaliku soxna soo xam ne xëy na la wax la ëpp ca moom fi mu toll nii lañ ci ngir man la ñuy mën a xamee ci moom ci réseau réseau yooyu ngay wax ci la nekk. Euh, muy koo xam ne li ñuy fàttaliku ci moom it mooy liggéeyam bu rafet ak jikkoom yu baax ak mission bi nga xam ne moo taxoon sunu borom euh, wàccee ko ci kaw suuf mu xam ko remplier ko ba mu mat sëkk ñu di ko fàttaliku donc waa waa comité organisation bi ñoom sëñ Cheikh ma ñu tànnoon nag xëy na ay thèmes yu bari réseaux sociaux yooyu benn la ci waaye am na yeneen waxtaan yoo xam ne ci yeneen ak yeneen la jëm diggante tey ak suba. donc euh, tey ñu nekkoon ci ñu fi may wax ak yow ñu toll toll ci waxtaane réseau sociaux yooyu seen i seen i avantage maanaam seeni njariñ ak seen i lor ndax euh, xëy na lenn lu ci nekk lu mu doon lu nit di jëfandikoo rek dina am lu ca baax dina am lu ca baaxut ñu wax li nga xam ne xëy na mooy la ca baax ngir nit ñi mën koo jariñoo wax tamit la nga xam ne mooy la ca baaxut ngir nit ñi mën koo moytu kon li ko sabab nag mooy occasion yu mel nii Euh, occasion la yoo xam ne ginnaaw nit ñi danañ bari te danañ fa occasion la boo xam ne di nga mën a jàllale li nga xam ne moo am njariñ ak li nga xam ne mooy dundinu nit ñi su ko defee nga wax leen ci ay message yoo xam ne yu am njariñ lay doon yoo xam ne danañ ko mën a def yóbbal ngir mën a ngir seen àdduna mën a jag wala boo xëy na sax ngir xam book fan la ñu teg seen tànk ci àdduna ngir mu mën leen a jariñ ëllëg seen seen bàmmeel ak buñ dayeeg sunu borom. waaw man nga ne moom nit ki nit ki wala boog mbiri diine man nga ne boo bu lépp doonul culturel boog culturel am na ci am na ci cër boo xam ne cër bu mag la euh, bu dee noon morit nag moom sunu li ñuy mën a tuddee culturel ci noonu mooy lépp loo xam ne rek luy tax sunu mbiri àdduna yéwén la ak loo xam ne day tax sunu ëllëg yéwén ci loo xam ne dinañu dolli dolli ñu ci mbi xam-xamu diine rawatina waaye xam-xam boo xam ne it xam-xamu àdduna la waaye xam-xam boo xam ne it xëy na xam-xam yu bees yi lay doon yoo xam ne yëpp rek day dugg ci àdduna bi ma wax léegi su ko defee lenn lu ca nekk rek muy doon loo xam ne dañuy wut occasion boo xam ne nit ñi danañ ci mën di jari daje buñ fa dajee ñu fexee yaatal loolu parce que occasion yooyu xëy na du bari nga am ko donc soo ko amee nga saisir ko fexe ba def ca loo xam ne luy jariñ nit ñi la su ko defee nga xam ne bernde bernde bernde yaram day am mais bernde culturel tamit da nga leen koy defaaleel ci bis yu mel nii donc bis yu mel nii man nga ne lépp sax culturel la njàngum alxuraan mi njàngum xaside mi waxtaan yi ñu ciy def fàttaliku waaju baax wala fàttaliku soxna su baax su mel ne soxna si lépp ci wet googu lay dugg te ci occasion yi rek nga mën a amee nga ko mën a amee pour dugal ko ci bopp nit ñi. en tant que panéliste jàpp ngeen ne message yi ngeen di bàyyi ci bis ngi mi ngi passé ci nit ñi. waaw normalement bu fekkente ne bii la nga war la war loolu lépp charte yi ca war a war yëpp daje na ci. ca nañ koy defee ak conditions yi ñu koy defee ak yow mi koy def ak ni koy defee normalement dana war a jàll donte nag am du yëpp du yëpp ay jàll ndax euh, pertinence li ngay wax ak tamit loolu yëpp def ci am solo donc bu fekkente ne bii da la ca war a am lépp am na ca mi ngi jàll te man jàpp naa ne la ca ëpp mi ngi jàll donte du lépp nag waaye man nga ne 80 pour cent yi wala lu ko ëpp lépp mi ngi jàll nit ñi ngi ciy jot rawatina jumtukaay yu bees yi lii ñuy def mën naa dem fu nekk ku nekk mën na koo dégg ku ne mën na cee jariñu donc kon lii ma jàpp mooy cible bi nga xam ne ñoo ko soxla ñi ngi koy jariñoo mel ne soxna jaara parce que dëkk bi dañ naan perte crise des valeurs ak perte des valeurs lu nekk ñu koy wax est ce que jàpp nga ni modèle la boo xam ne nii murid yi ak jigéen yi Sénégal wala àdduna bi ñu ngi maintenir di ci bàyyi xel ku mel ne soxna jaara ba léegi wala wax ji rek moom moo fi nekk ak tudd tur bi di ko fàttali waaw loolu moom xëy na xëy na wax ji wax ji am na waaye ñàkkut tamit am na benn benn yu góor góorgóorlu loolu nag li ko waral li tax wax ji xëy na mooy gën a bari léeg-léeg ñi koy wax ak niñ koy waxee ak ki koy wax xëy na amaana nit ñi xool ci moom dina bari yu tax mu am ay barrières yoo xam ne nañ ko war a jariñoo duñ ko ni jariñoo ndax ñun bu ñuy nettali ku mel ne Soxna Jaara dañ koy nettali nettali yéemu waaye duñ ko nettali nettali roy donc kon il faut ñuy wax tamit jéem a wàccee niveau bi walla wala jëfandikoo seen pédagogie fexe ba xamal Soxna Awa njaay mii kat su may wax ci Soxna Jaara di wax ci moom di la wax lii ak lii la ma ca bëgg mooy nga fas yéenee doon am Soxna Jaara même soo mënta doon soxna jaaral la am solo mooy nga jaar ca yoon wa rek soo jaaree ca yoon wa xay na soo melut ne moom it ñii mel na yow duñ bari. yéen kàddu ngay tënkee ngir ñu bañ laa téye lu yàgg parce que yaa ngi war a demaat ci plateau bi. d'accord kàddu yi ñuy tëjee mooy sant yàlla rek ci occasion bi mu ñu jox ñu bokk ci njataay yu mel nii ak it di xamal nit ñi ne it rek bis yu mel nii su amee la ci am solo mooy ñu jàngee ci ci ki nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ci fas ak tamit ñaanal ki nga xam ne moo ñu jox ko mel ne Cheikhul Khadim tamit kon bu ñu lu lu yëf yi bari bari ndaje meek neexit yi buñ topp neexiti yaram wi rek bay fàtte neexiti ruux gi mooy ñaanal soxna si fàttali ko ay jikkoom roy ci te it fas yéene buñ ci jógee xayma sunu bopp ba bu ñu ñëwaat déwén ñu seet ci ñun ñu gis ci ñun ak dolliku goo xam ne ci bis bii la sababoo. maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta maam maaram